mbokki asalaamaaleykum euh, mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni yéen a ngi faral di seetaan seen site bu mag bi alo Dakar TV tey nag ñu dellu siwaat ci suñu émission numéro 3 muy le grand débat tey ñu dalal kàngam bu mag boo xam ni responsable bu mag la fii à Grand Yoff euh, muy honorable député Moussa Sané monsieur Sané ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen fay maa ngi fay waa Dakar TV en tout cas di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax. Eh, di len remercier si choix bi ngeen def porte ko ci sama jëm ji eh, di len si di rafetlu en tout cas waaw ah, di wat encore une fois kilifa Dakar TV yep di nuyu suma njabot ak wa Grand Yoff yep monsieur Sané jërëjëf euh, ci nuyu bi euh, le grand débat nak boko ko émission bi ça parle de l'actualité du pays té gis nañ ni euh, honorable député nga. ba pare jiite li nga xamante ni si mooy euh, mouvement bu mag boobu nekk coordinateur muy les le mouvement central des Casamançais euh, mais nag suñu question bu njëkk mooy responsable politique nga mais mu am na koo xam ne nag bu yàggul lañ ko bàyyi te xëy na nit ñi xaaruñu woon bàyyi boobu bu gaaw boobu mu doon responsable moom bi nekk fii Grand nga dëkk ak muy mag yow di sa grand frère ñu xëy ko rek libéré ko. ci li nga xamante ni si euh, xaaruñu ko woon muy monsieur Khalifa Sall ban ban yëg-yëg nga am ci loolu ak lan nga ci wax. waaw di wax ni rek euh, dama lay nuyuwaat bu baax hein, euh, di wax ni je suis député de l'Assemblée nationale mais également que le coordinateur de la centrale de la communauté casamançaise de Dakar et nek aussi député bu CDAO Nek commissaire politique bu l'alliance pour la république eh, tay bu député bu département de Dakar mais également nek député bu Grand Yoff kon donc le question bob nga ma laajte dafa am solo ku melni Khalifa Sall genn nga ma lan moy ci sama gis-gis dama koy dama lay wax ni rek ni Khalifa en tout cas ñun de bokon nañ ci ñu doon ñaan pour mu genn waaw ah, parce que suñu mag la parce que tey benn doomu aadama du ñaanal kenn mu nekk ci kaso waaw mais yàlla suturaal nañu nag def na fa pratiquement presque ñetti at yàlla génnee na ko mu delluwaat si njabootam e ñu koy rafetlu ñu koy rafetlu di ko ñaanal yàlla yàlla suñu borom suturaal ko en tout cas mu dellu si waat si suñu biir waaw c'est vrai que nii bokkuñu fi ñu foote mom mi ngi nek si benen wàll man ma nek si and ak président Macky Sall représenter fi le président Macky Sall parce que man may député gox bi kon donc tay ñun amuñu lu rafetlu genn bi mu genn di féliciter aussi le président Macky Sall parce que tay dafa am benn jamono mu taxawoon ne sa yu ma nexé lay baye Khalifa Sall ñepp yuxu ne way warul wax warul waxé ni mais Khalifa Sall Macky Sall moom rek moo ko mënoon baal su ko baalul day fay continuer toog foofu deux ans ya ko dese woon ci biir président bi kon donc moment koy baal aussi nit ki boo koy baal da koy baal ci sa sago noo ko baal ci lu kon donc moment li président waxoon dama defoon point de presse ne mais man gisuma lan moo tax gars yi di yuuxu médias yi di wax fii om politique yi ku nekk naan way Macky Sall lii warul nekk waxam ma ne leen Macky Sall li mu wax man dama koy dëggal dama koy dëggal dans la mesure où Sénégal des fois nit ñi dañuy fàtte dañuy am lu ñuy fàtte mooy constitution wu Sénégal loolu la ñuy fàtte bu ñuy wax te mooy politique nag di bëgg bàyyi constitution bi sa ginnaaw da ngay am problème il faut ngay ànd ak moom ngax nga méngoog jamono président de la république amul problème ak Khalifa Sall Khalifa dafa am problème ak yoon yoon atte ko tëj ko juróomi at mais président Macky Sall bu ko président bu ko bu bu nit amé peine ku melni Khalifa Sall ñu tejj ko juromi at mais juromi at yoy président bu Khalifa Sall défé un an président mënu ko bal. constitution mayu ko lool. bu président euh, Khalifa Sall défé ñaari at président mënu ko bal. constitution mayu ko lool. il faut mu def un an il faut mu def deux ans six mois Madame xaaju juromi at yamu waron teud. mu def xaaj bi bés bu defee xaaj ba nag si lay action président di mën a ñëw en action si lay am sañ-sañ constitution bi la mu ko may mu jéggal ko mais loolu nag noo ko def si lu dul si sa teeyu bakkan mais bu fekkee ni président léegi bàyyi na ko ci li nga wax léegi nii constitution bi d'abord il faut ñu ñu ñu ñu ñu dox ci kaw loolu mais léegi bu ko bàyyee ba noppi léegi da ko bàyyee provisoirement voilà ndax waxoon nañu fi nii nii xale xalifa dañuy dajale un milliard muy caution boo xam dañ koy jox pour ñu mën koo bàyyi ak li ñu fi ñaan yëpp gars yi bàyyi ko léegi ndax bàyyi bi day nekk bàyyi négandikum provisoirement wala dañ koy bàyyi ba libéré ko total non cest à tey bàyyi nañ ko maanaam cinq millions yi nga xam ne moom lañ ko amandoon dañ ko amande cinq millions mu war a fay aussi un milliard huit cent millions yoo xam ni moom la Sénégal jàpp ni moom la jël ci gafagu état loolu un milliard huit cent millions yooyu xalifa da koy fay mais 5 millions yi ka nga xam ni mooy gracier kooku mooy fay 5 millions yi kon donc Macky Sall fay na 5 yi nga xam ni moom la xalifa waroon fay pour ñu gracier ko loolu kii ka gracier mooy président Macky Sall mooy fay 5 millions yi loolu féete na boor loolu amelatu ko Sénégal mais li mu amel Sénégal mooy un milliard 800 millions yi loolu moom grâce bi mënu la ko mënu ko effacer waaw da nga génn mais di nga am diir danañ la woo la ah lii nga ameloon réew mi kat. da war a fay te loolu jàpp naa ni egguñ si mais si lañ tant que ñu ngi yàlla mu ngi ñuy may ñu dund war a fekke loolu dinañ ci yeggi. mais en tant que doomu Grand Yoff responsable euh, Khalifa Sall sa mag la yéen a bokk Grand Yoff mm-hmm. est-ce que yow pare nga pour dem seeti ko masawu ko xam ni masawu ko xam ni sa mag la te yéen a bokk Grand Yoff. waaw loolu moom lu mën a nekk la loolu lu mën a nekk la parce que jàpp naa ni bi mu génnee wax naa si nee naa euh, maa ngi rafetlu en tout cas. action acte bi président posé moy le fait que mu djegal ko bal ko donc ñu jog dem séti Khalifa Sall Khalifa suñu mag la suñu mag la té ñu respecté ko mais ñu gis-gis politique lolu que dama koy wax chaque jour que Dieu fait man franchement parler ma gis-gis politique ak Khalifa Sall ni muy maintenant nous ni muy je dama koy respecté parce que tamit comme ni ma ko ñu bokk Grand Yoff mais également ñu mu nekk un responsable politique boo xam ni tey Sénégal ñëpp xam nañ ko kon donc war nañ ko respecter ci kad ci anam yooyu waaw kon donc dem gis ko seeti ko loolu aussi awma ci benn problème saa yu yàlla dogalee mu war a mën a nekk rek eh, dinañ ko def incha allahu rabi te ma defal la benn scoop man matul trois mois toog naa ak maire bi nekk fii Grand Yoff muy Madiop ne ko man dinaa seeti Khalifa Sall yóbbante ko si moom waaw maa ngi wax si kanamu ay média laay wax ma jóg toog naa ak moom ne ko boo demee nga nuyul ma grand bi waxal ko ni vraiment li ko dal ni waaw destin la yàlla moo ko tuddoon il faut mu jaar fa. waaw kon donc man aw ma benn problème ak Khalifa Sall. mais diggante président Ablaye Wade ak euh, le président Macky Sall jubóo bi la loo ci xalaat yow. waaw jubóo Ablaye Wade ak Macky Sall loolu dama japp ni lu wara am la lu wara am la te waron na am bu yag sax ndaxte man ça fait plus de 4 ans yalla seede na ko ak ay kilifa yu mak amna suma ben papa Pa Ñang mak la c'est un vieux de 80 ans musna tok ak mom di waxtaan ak mom si diggante Khalifa Sall euh, euh, diggante Macky Sall ak euh, Ablaye Wade mu doon si wax ak dënn ma ne ko papa man de su ma sañoon ñaar ñi papa lañu ak doom te bu ma sañoon daal maanaam nga def si ndànk daal waaw parce que man ablaay Wade ak Macky Sall man daf ma leer que ni jusqu'à la preuve du contraire que ni Ablaye Wade buggul kenn ku dul Macky Sall te Macky aussi buggul kenn gëmul kenn ku dul Ablaye Wade kon jàpp naa ni ñaar ñi seen diggante. xëy na peut être nit ñi ñoo si nekk di yàq rek kii di wax fële ñële di wax fële mais bu ñu demee ba yàlla def ñu daje ña doon wax ñëpp danañu noppi. bu ñu dajee ñi doon wax ñëpp dañu noppi eh, seen jubo bi xaaroon nañ ko xaaruñu ko moment bi mais nu ma amee nii brusque nii ci ouverture Massalikul Jinaan bi Serigne Mountakha jubóole leen publiquement devant tout le monde mu doon lu ñëpp rafetlu yow ban jàngit nga ci am beneen bi ci topp mooy xanaa bu fekkee ni juboo bu am na ñu bàyyi la ñu bàyyi Khalifa Sall mu génn kon nit ñi war na mën nañoo xaar Karim aussi mu génn moom it nekk ci jàmm. waaw euh, foofu nag moom li may wax rek mooy santaat sëñ Mountakha Mbacké nekk suñu xalif général des murit parce que man ku ma xam-xam ni ba sëñ Fallou la sëñ Abdou Samad Mbacké mu sëñ Fallou mooy sama sëriñ euh, ma koy ñaanal. ci barsàq ga mu nekk yàlla yokk leeram te taaf ñu si barkam di waxaat ni rek saa su ne ñi ngi sant Serigne Touba sëñ Mountakha li mu def dañ koy rafetlu dañuy wax ni loolu sëñ mun Mountakha rek moo ko mënoon def keneen mënu ko def ndaxte ku nekk essayé nga ko kon donc bu yàlla defee moom mu réussir ko ñëpp nangu ni wax dëgg yàlla tey sëñ Muntaxa wane waat na beneen faset si xalif bi mu doon kon donc ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam mu yàgg fi lool ànd ak wér. et di wax ni rek juboo xalifa euh, euh, euh, Macky Sall ak Ablaye Wade loolu lu Sénégal soxla la lu mënta ñàkk la ala kulli xalim guerre boo gis rek si àddina fa muy mujjee mooy toog waxtaan autour d'une table. te japp na ni tay fofu lañu ñu ci si Macky Sall ak Ablaye Wade ñom ñaar dañu wara and pour ndariñu Sénégal te buñu andé rek Sénégal gis ci ndariñam donc man lolu dama koy rafetlu maintenant di wax ni euh, bi lolu passé aljuma bobu ñu tok lundi mardi président Macky Sall gracier Khalifa Sall ñu rafetlu ko donc suba. Euh, Karim Wade gracier nañ ko moom lañ njëkk gracier ko xalifa Sall génn na ba dem Dubaay kon donc kooku féete na bor maintenant ñibbi si réew mi nag la ñuy wax parce que xalifa Sall ak comme Karim dañ leen gracier loolu sañ-sañu président de la république la parce que Karim Wade aussi six ans lañ ko tëjoon bi mu tëddee ñetti at yi si le président am sañ-sañ pour mën ko bàyyi. jéggal ko kon li xew ni nekkul lu bees le fait que ñu gracier Khalifa Sall gracier nañ fi xali Karim wàdd kon donc tey bu ñu gracier xalifa nekkul lu bees Macky Sall c'est quelqu'un boo xam c'est nom homme de dialogue Macky dafa nekk koo xamante ni maanaam jàmm moo ko gënal lu mu am ci àddina kon donc tey damay jàpp ni loolu grâce boobu féete na boor maintenant dafa am leneen lu des mooy am nisti nag. assemblée nationale moo koy voté amnistie boobu mooy waral tey Karim Wade comme Khalifa ñu am droit bokk ci ay élections parce que Khalifa Sall tey génn na mi ngi dox di dugg di génn mais amul sañ-sañ pour bokk ci élection parce que condamnation yi ñu ko tëj la li peine yi mu peine yi mu am la comme Khalifa comme Karim donc ñoom ñaar ñëpp lan moo leen di setal définitivement mooy amnistie bi nga xam ni assemblée national lay ñëw. ñu voté ko buñ ko voté rek si la ñuy am sañ-sañ léegi maanaam set wecc ñëw war a bokk ci ay élection kon loolu beneen la. jërëjëf euh, honorable mais honorable nag ñi ngi Grand Yoff en tant que responsable politique en tant que député aussi à Grand Yoff euh, bokk na ci ñoo xamante ni si euh, bu ñu waxee Grand Yoff insalubrité bi bari na sécurité bi bari na. loolu yan yan yan yan tànk ngeen ci am en tant que député Grand Wow, waaw euh, euh, comme ni nga ko waxee insalubrité bi bëri na insécurité bi aussi bëri na mais dañuy sant yàlla parce que ñun bi ñu ñëwee assemblée nationale en 2017 première euh, session bi nga xam ni moom la assemblée mooy budget bu assemblée bu 2017 en commission technique dañu taxaw ñun député Grand Yoff parce que ñun ñett lañu wax ak le ministre de l'intérieur wax ak mom pour que Grand Yoff ak dayo bi mu nous, ñu nous, ko niveau parce que Grand Yoff poste de police la amone poste de police il y a dix policiers ñofi sur x mille habitants ñu ne loolu jaaduwul il faut que ministre bi mu soppi xarkanamu Grand Yoff ci côté sécurité bi yàlla suturaal nañu indi nañ fi commissariat et daaw bi ministre bi dellu see assemblée nationale dama ko wax man maa ko interpellé ne ko monsieur ministre Grand Yoff tey ñu ngi lay féliciter di la remercier ci poste de police bi ñu indil ci commissariat bi ñu indil mais jàpp nañu ni tey. dañoo soxla am beneen commissariat nous euh, rassurons aussi si ne ma Moussa si budget 2020 si préoccupation yi kon donc am nañu yaakaar que ni Grand Yoff si dul dara dina am deuxième poste police deuxième commissariat mais le yemuñu ci dama ko wax monsieur le ministre Grand Yoff nga renforcer le personnel du commissariat de Grand Yoff te séance tenante ci ëllëg sa ministre bi jëlee ko 19 a ko 32 policiers au niveau du commissariat de Grand-Yoff kon donc lolu jàpp nañu ni tay insécurité bi namu mu won avant Taïwan. wàññeeku na ñu nak ni matal nañ ko à 100 parce que sécurité moom mënu kenn mënu ko assurer à 100 mais tay amna changement parce que faut garder ci Grand-Yoff di nga gis. auto commissaire euh, auto auto Grand Yoff commissariat bi mi ngi si yoone commissaire euh, policier yi ñu ngi dugg si gox goxaan yi fépp fu ñu dégg ni fii am na danger bu fa nekk ñëw nañu anéantir ko. Euh, honorable jàpp nañ ñi xëy na du yàgg tuuti am nañ loo xam dina waa ñëw mi élection législative yi war a ñëw en tant que responsable Grand Yoff lan la waa Grand Yoff di xaar ci yow. waaw euh, élection élection locale yi. élection locale yi waaw élection locale yi nga xam ni moom moo nekk ñuy waajal je pense que ni actuellement ñu ngi nekk ci jaloog bi ñu ngi ci jaloog bi ah, ma fay teew de temps à autre mais di wax ni rek dialogue bi définir guñu en tout cas modalité élection bi ñu nar a dem maanaam élection locale bi dañu dañ doon def nii dañuy taxawal lis bu ñu demee ba gañe ñu rebelote taxaw ne ñan ñoo bëgg nekk maire ñu dem compétition ñii si des votel leen ku jiitu ñu def ko maire mais fu mu nekk nii li nga xam ne moo jib si biir jaloog euh, euh, euh, bi mooy dañoo ne ki ñuy jiital kooku mooy nekk maire kon tey données yu bëri dafa changé fu mu nekk nii il faut que ñu xaar ba nga xam ni définir nañu lépp tënk nañu lépp juboo nañ si lépp ñu soga wax ne bis sangam moy don election yi maintenant nak man limay xaar si wa Grand yof wala wa Grand yof li ñi xaar si man moy ma taxaw deugal sama bop parce que tay mënu ma fi nek di politique ba yalla dogal ma nek député bu Grand yof mais ba paré di taxaw di fété ginaaw loolu xalaatuñu ko. mais est-ce que loolu dina yomb ndax responsable yi nga xamné ne nek nekk APR bari fi lutax mënu len bolo def ben bloc yéen. waaw yomb moom xalaatuñu mu yomb. parce que lu yomb sax baaxul mais bu ñuy dem élection président mooy définir moo naan diw mooy jiite liste ba te jàpp naa ni ñoo ñu taxaw di yuuxu di tëb de gauche à droite mais xam nga di dem si di dem si làmb ja di bàkku jóge ca làmb ja di bàkku moo ko gën man ma nekk député de Grand Yoff tey président bi mu ñëwee Grand Yoff nga xamni dafa une tournée du département de Dakar dem commune bu mu fa bi mu leader yop. taxaw féliciter l'honorable député Moussa Sané si engagement loyauté forte mobilisation bi mu def mais ba président dafa né dama koy jox mu wax de Grand Yoff cest une politique aussi il faut que di déglu la faut orientation ya en joxe président su ma tekkiwuloon dara si suis Grand Yoff suis ma fi waxa ah. leader suis ngi taxaw man le président jox micro bi micro bi wax ci la nga xamni président ci Grand Yoff ak lamu def donc tay président rek Je yoon je li nga xam ni moom la bëgg a def maintenant ku ko dégg na dox ci xayrun ku ko déggul tamit mais di nga dem ba mbëkk miir rek nga daal di taxaw. mais di nga dem ba mbëkk miir nga taxaw mais biñ la falee député ba léegi fii ci Grand Yoff ak responsable yi fi nekk lan nga lan lan nga wan nga xam ni yow mii def nga ko defal nga ko waa Grand Yoff wala waxal ngeen waxal nga ko waa Grand Yoff ba tax ñu defal ko waa Grand ba tax waa Grand mën a am ci yow confiance pour mën a pour mën a jël maire bi jox la ko ndax jël ko aussi ci li nga xam ne mooy camp Khalifa du yomb ah. non loolu jafeetul sax. jël ko ci camp <laughs> Khalifa Sall moom loolu jafeetul ah ba defe naa ni problème bi su suñu biir la ñun. Eh, man li ma defal Grand yof je pense que ni ku dem YouTube di xool vidéo yi Moussa Sané intervenir si assemblée yaakaar naa ni. boo ma respecté woon benn di ma respecté fukk parce que amul ministre buy jaar assemblée nationale te du ma wax ak yow man député département de Dakar laa ni ma nekkee député Grand Yoff noonu laa nekkee député 19 commune yu Dakar yëpp mais la may wax ci Grand Yoff mais dafa yéeme tey député bu taxaw assemblée nationale damay samay xarit yi ma jege su ma jegee pour wax sax nga gis ñu naj ma naan ma wër na ma Grand Yoff nga fiy wax parce que Grand laa am. man maa taxaw Grand Yoff xoolal kaas si CM yi nga xam ni moo fi amoon Grand Yoff ay CM ay CM la amoon da ngay am BFM tu étais ñu yóbbu la ci ay lycée Limamou Laye Blaise Diagne Delafosse te ñun suñuy wayjur ay néew ju doole lañu man suma yaay da doon jaay daabal di jaay ay mango di jaay ay màdd di ma jox paas may jàngi di ko defal su may rak te loolu sama yaay doon def loolu la keneen ak keneen yaayam di def dañuy jaay ay gerte ci anglu koñ bi pour dajale paas pour seen doom yi jàngi maa taxaw assemblée nationale teg ko ci table bi ba tey yàlla suturaal ñu ministre de l'éducation nationale tabaxal ñu lycée bu Grand Yoff pour la première fois am nañu ñaari lycée tey ci biir Grand Yoff loolu ñoo ko liggéey ñun en tant que député ma taxaw assemblée nationale ne président ne ne ne ministre euh, du renouveau urbain ma ne ko yow le président dénk nga nekk di tabax les sites religieuses mais sites religieuses yi tey ñun dañoo jàpp ni église yaa senti càmb mu nekk église bi nga xam ne moo nar bi gën a rëy ci Dakar kon donc tey ñun dañoo jàpp ni église boobu da nga ko jël def ko comme cité religieux yi ni nga ko di def nga def ko programme spécial te yàlla def mu taxaw ne loolu dinañ ko jël def ko programme pour def ko comme niñ defee cité religieuse yi tabax ko clin en main loolu mako def ak yenen ak yenen ak yenen parce que tey ñun amuñu lenn luddul Grand Yoff Ah. Grand Yoff yalla seede na bu ñëwoon di tok assemblée di gis intervention yi ñi def devant les ministres xoolal tay mais tali yi nekk HLM Grand Yoff ak tali yi nga xam ne dañ ko war a def ci Grand Yoff mooy Promoville AGEROUTE man maa taxaw dóor ko ci table bi bi ministre des infrastructures jàllee ba tey am na fi ay tali yoo xamante ni ñu ngi koy defara loolu yëpp AGEROUTE moo ko nekk di defar mu nekk pour le bien des population de Grand Yoff loolu nag du suñuy wax waxu honorable député la xam naa ne waxtu wi nag moo ñu xooj mais honorable ñu am benn question bu gàtt rek bu ñu lay bu ñu mooy suñu dernière question ak yow est-ce que jàpp nga ni waa Grand Yoff war nañ laa mën a jox nag Grand Yoff nga yor bi ba pare nag looy tàggatoo ak askanu Sénégal bi. waaw loolu moom tamit dinaa ci kontaan di ko tontu xam nga dama koy wax di ko waxaat président Macky Sall euh, assemblée nationale bi ma nekk man muy treizième législature. Euh, député ya 60% des députés yi nek assemblée nationale ay maire la ju ci sen parce que bo nekkee député maire si ngay mën régler sa problème gox manam bo soxla hôpital ministre de la santé day ñew assemblée nationale fofu nga koy régler nga soxla lycée ministre de l'éducation nationale day ñew fofu nga koy régler nga soxla ne pouvez a soxla rek. chaque jour ñi ngi froté wu ak ministre yi nga xamni ño nek ci gouvernement bi yëpp ku ci nek di nga ñew tok ku nek wax li soxla ci goxam mu wax lan la ci mëna def mais bu fekkee maire nga rek amuloo sañ-sañ bobu fi ngay nek di daw di wëndelu ba 5 ans yi mat te doñu defal dara kon donc tay man dama japp que ni Grand Yoff ne peut pas avoir un candidat beaucoup plus crédible que Moussa Sané ta nek kon donc man Grand Yoff ñu tànn ma wala suñu parti tànn ma munuñu munuñu dama koy je bien mooy mot damay wax li may wax si média laa koy wax. àddina yëpp di ko seetaan c'est pas parce que dañuy vanté wu wala dañuy man dama juddoo Grand Yoff yaroo Grand Yoff su ma jur am fi njaboot joo xamante ni tey samay doomu baay samay doomu ndey ñoom ñëpp dëkk Grand Yoff Nous xamuñu fenn fu Grand Yoff Grand Yoff ba pare nag am une forte communauté nous représentons 60 des populations de Grand Yoff ils sont issus de la communauté casamançaise mais ñooñu tey ñooy réclamer am doomu Casamance bu toog nekk maire te gisuñu keneen ku dul Moussa Sané loolu benn la suñu biir parti nga xam Alliance pour la République ma liggéey fa loo xamante gisuma tay ko xamni liggey na fi lu raw li def parce bu amone kenen ku def lu raw li ma def president jël la jël la def la député et donc bañ ma jëlee aussi ma nek député bu Grand Yoff si lañu gagné Grand Yoff kon donc loolu yeb mu nek ay paramètres yo xamantani mënoko mënoo jël ko fële bu féké dañuy politique il faut que nous soyons rationnels tay gisuma candidat buy taxaw sama kanam bokk APR bu gëna taxaw Moussa Sané loolu du sama wax waxe waxe honorable la honorable lay tàggatoo ak askan wi ak allo Dakar TV. waaw euh, limay may askan bi rek moy euh, di waxat ñep ke ni maa ngi sant ñëpp di gërem ñep et di wax ni nak xëy peut-être man suma suma suma engagement mo nek un engagement fort manam bu may dugg ci mbeur dama ci dem ba sës man duma laqatu pour wax ni dama bëgg nek maire man dama bëgg nek maire député maire bu Grand Yoff lolu moy suma ambition té lolu tamit jàpp ni son excellence le président Macky Sall xam na ba mu tanné près 60 des députés ñu nekk ay maire ci sen gox nekkon nañu ay maire mu jël leen defaat leen ay députés kon koku fast track bi muy wax xam na ni si lolu la mëna jaar pour accéder en tout cas à ses ambitions et ñun nak suñu projet politique c'est que président Macky Sall mu yeggali mandam ci jamm mu sur mandam ba nga xamantani ni yeb dinañu ne gongo parce que man japp naa ni le président Macky Sall c'est le meilleur candidat bu ñu am depuis biñu amé indépendance ba tey. donc ma ngi santat ñep di gëreum ñep di wax ni wax ji aussi bu tangé nañu japp ni rek euh, ben ndaw mo doon wax ah nek ko xamantani ni peut-être engagement politiquement dafa nek lo xamni lu fort la nga xamni bu may wax dama koy waxé ak xol. mais du question dama yaradiku wala dama dama dama damay imposer damay wax rek dëgg rek te yàlla tax barke Serigne fàllu Mbacke dëgg rek te yàlla tax. waa damay wax nag dëgg rek te yàlla tax kooku nag moo doon wax yi mi ngi jóge ci ki nga xam ni mooy euh, honorable député Moussa Sané Moussa honorable ñu ngi lay sant di la gërëm. nak mo émission le grand débat bi nga mom euh, Allo Dakar TV chaque fois ni vous troisième édition bi ñu dalal nak ki le député de Grand Moussa Sané Moussa Sané Allo Dakar ñu